conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Cheikh Gueye maire bu jëppal derkale wax na si ñetteelu mandat bi nga xam ne ñenn ñu ñoo koy laam-laamee ci réewum Sénégal la mu xamle nee na nekk ci réew mi di fi waax ñetteelu mandat maanaam loolee musiba ma bu kumba gu rëy la loolee lu garaaw la moom Cheikh Gueye ne damaa xamul nit nan la mën a nekkee ci réew mi di fi waax waxi ñetteelu mandat te nag am na loo xam ne maanaam askan wi ñoo war a jël seen i responsabilité fajal ko seen bopp maanaam pesum kanam borom moo koy fajal boppam te sunu constitution bi nga xam ne dañuy dëkkee ak moom di jouer ak moom di ko caaxaane di ko caxte caxte loole la ñu war a teg ci suufa ba tey ci biir yéen kaay gi ñu fekk fa cër na loo muy dànkaafu mbooleem njiitu réew yi nga xam ne ñoo nekk ci déndu Afrique bëgg am ñetteelu mandat cër na loo nee na loole nañu ko teg ci suufa ndax du mbir moo xam ne mu jaadu la képp koo xam ne fal nañu la maanaam la la fal bu jeexee da ngaa war a joxe réew mi yéen kaay gii di vox populi ñu fekk fa Moussa Tine benn si jege ñaale Khalifa Sall la mu xam le nee na parrainage bi li tax ñu andi woon ko fi segg ko mel ni Khalifa Sall moo tax te nag njiitu réew mi di président Macky Sall maanaam li nga xam ne waatoon na ko ci kanamu askanu Sénégal dafa war a wàccoo ak moom maanaam daf ko war a respecté nekk ci réew mi nag di fi wax ñetteelu mandat loolee yàpp askanu Sénégal la te loolee yàq réew mi la maanaam dafay bloqué réew mi yéen kaay gi de Dakar xëy def gëstu bu yaatu ab jàngat ci Afrique de l'Ouest nga xam ne bëri na fi ay réew yoo xamante ne ay pël ñoo ko jiite su passé ñi ko jiite bëri na ay opposants yoo xam ne yu influent lañu maanaam am dayo lool ay pël lañ yéenekaay gi wax na ci réewum Sénégal ak Macky Sall ak Adama ca Gambie wax na ci Mouhamed Buhari wax na ci Umaro Sissoco Embalo nee na ñi ñëpp ay pël lañ wax ci opposition bi nga xam ne moo nekk ca Guinée Conakry ku ci mel ni Sili Dalein Diallo wax ca Mali Soumaïla Cissé wax ci Sénégal Mamadou Lamine Diallo yéenekaay gi de Dakar Times xëy ca pël yeeg ni nga xam ne moom lañ akimoo yenn ci ay réew ci déndu bi nga xam ne maanaam am xam ne moo xewoon ca diwaanu Ndingler diggante askan wa nga xam ne ñoo fa yeewoo ak Babacar Ngom bu Sedima soo moytuwulee dina xew diggante askan wi yeewoo Kër Massar quartier Daaru Salaam ak président directeur général bu Sénico Néema Abdoulaye Dia ndax ci Kër Massar dafa am lu toll si ñaari téeméer ak fukk ak juróom ci ay njaboot xamante ni Abdoulaye Dia moo leen bëgg a génne ndax moom Abdoulaye Dia nee na askan woowu fa nga xam ne fa la ñu dëkk ñaar fukki hectare la ak juróom-ñaar te Abdoulaye Wade moo ma ko jaayoon askan wa nga xam na ñoo fa yeewoo ñoom nag nee nañu pare na ñu ngir dee waaye nag foofe du ñu fa jugee yéenekaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa waa ànd gësëm di yëngatu ci lu jëm ci wàllum wér gi yaram gi ñoom nag nee nañu état bu senegal na jël ay responsabilité ma ay matukaayama ci xew-xewu diine yi nga xamante ni ñooy wàcc suñu bañee musiba ma ba kumba gu rëy am ci réew mi yéenekaay gi di Libération nee na benn ay bés lu toll si junni ak juróom fukk ak juróoma ñu amee woon coronavirus daat nañuy wér docteur Alpha Sall nekk Institut Pasteur daan nay xamle ne askanu Sénégal lu ñu gën a takk masque yi feebar bi di gën wàññeeku te loolee nemmeeku nañ ko fan yi ñu génn yéen kaay gi di Sud Quotidien daal di wax ne élection locale yi nee nañu duñu weesu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 2020 waaye nag soo moytuwulee danañu ko dàqaat te bu ñu ko dàqee moo nekk ñetteelu yoon yoo xam ne ñoo ngi koy dàq yéen kaay gi di Quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall da doon jël 40 millions di ko jàppale kuréel gi ëmb magistrat yu Sénégal 40 millions yooyu Macky Sall daan na koy dakkal yéen kaa gi di réew mi Quotidien xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu réewu Mali imam Diko moom nag la mu xamle nee na militaire yi bëgg yàggatee réew mi lu toll si ñetti at loole dafa bëri li nga xam ne xel nangu na ko ñu bàyyee leen réew mi lu toll si at ak juróom benn weer loolee sa xel nangu na ko ñu waxtaan ba déggoo daal di koy jox ab civil CEDEAO gi nga xam ne ñoo bëgg a sanctionné peuple malien loolee waa CEDEAO teguñu ko fenn loolee kàddu yi imam dikko la yéen kaay gi di sunu làmb xëy di ñu xamal naan ñu Mouhamed Ndao Tyson jamono ji aw turam ñoo koy lam laamee ne mooy wuutu Aliou Sarr ci bopp CNG yéen kaay gi du l'observateur xëy di ñu xamal naan ñu combat bi nga xam ne Gaston Mbengue tëggoon na ko diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux combat ba ca yàqu la jëm ndax Gris Bordeaux nee na fukki millions yi ko Gaston Mbengue joxoon dana ko ko delloo ndax Gaston da koo jox ñaari chèque baara yoo xam ne ba léegi ni maanaam munta retiré xaalis ba yéen a kaay gi de estat xëy di ñu xamal laan ñu Sadio Mané mi nga xam ne bokkul si ñi ñu gën a ci Liverpool te jamono ji dafa am jafe-jafe ak entraîneur ba ndax du baax si Sadio Mané mu jóge Liverpool dem Barcelone yéen a kaay gi du Sud Quotidien mu xëy ci lu jëm ci wàllum njaay ak njëndum yi nee na Liverpool jamono ji pare nañu ngir jënd Ismaïla Sarr Sadio Mané ma ngi